waa jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi amaan mbégte kontaante saa su di ànd ak yéen ci suñu programme RTT TV ak 724 ñu nekk fii tey ji signature contrat jëm ci la 28 novembre ñu jëm ci bis bu am solo ñu ciy ànd ak euh, suñu partenaire négoce ñu jëm ci bis bis bu am solo di bu làmb association téer yi tëgg ko ñu jëm ci benn combat bu xaw a doy waar combat bu boo xam ne daal day foo ko natt wees na ko muy diggante yaakaaru guy sommen ak foog bari di combat bu neex mais bala ñoo sori tuuti rek dañuy jox ñaari mbër yi ñu nuyoo ñu njëkk a jox kàddu gi yaakaar yaakaar ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax a baax di leen siyaar di siyaar ñëpp ñu fi ne ñu nuyu waa Guy Sombe bu baax a baax di leen wax ne yàlla na yàlla may jàmm dañ fekk lamb jeeg jàmm soob yàlla kii nag xamul lu ma koy wax ndax xamul bu dee li fi jaar moo tax mu jël combat bi bis ba dina bëri ba wàcc. lan moo fi jaar. moom gars yi xam nañ dañoo génn ñu am ndog-ndog mu jël combat yaakaar na day yomb combat bi du yomb barki alxuraani karim bu ko jàppee naa ko bëraloo ba ngocc bala ñoo sori tuuti rek damay jox foog bari euh, micro bi mu nuyoo wax la euh, mu jot yóbbante adversaire am auzu billahi bismillahi ne wan yàlla ginnaaw bu mu sant yàlla julli séenante bi sant sama ñaari waajur di sant ñu ma àndal yëpp ku si mel ni doomu njóob ak ci taalibe Bamba bi moom dafa baax rek barki Serigne Touba laa ko waatal nit mën nañoo nekk fii nii signature ngay wax mais bu arbitre fir lu ma bëgg nga def ko moom ngay def. est-ce que xam nga yaakaaru buy soldé. xam naa ko bu baax. noo ko xamee. parce que bokk nañ ba fat ba fatu jaxaw ba maa dem ba final may sama booy doomu njóoboo premier tour lañ ko daanee ku ko daan maa ko daan. yow looloo tax looloo tax nga ñemee ko jël ko. maa ko mën aller retour barki Serigne Touba te su ma ko jàppee laamu ji jeex maa koy dalal laamu gi sama koñ laam day xaar. mais moom revanche day jël si de. du ko am. lu tax barki Serigne Touba du ko am. foo ko teg. fu leer bis ba incha allah. yaakaar dégg nga li mu wax. ax ah, li mu wax moom la concerné man concerné wu ma ki ma daan daan la ko amul njariñ Modou Lo ngi nii ak Balla Gaye xoolal Eumeu Sène daan la Balla Gaye Modou Lo daan la Eumeu Sène lool maa ngi yow laa la bu ma la jàppee barke alxuraani karim naa la du naa la bëreloo ba nga wàccu laa la. kii nii maa la ëpp doole maa la dàq bëri. xanaa xamoon foo foo gàbbee xanaa xamoo ko. lijjantiwu ma ko sama bopp laa lijjanti. leer laa la wax ma la jàppee nga bëre ba ba ah? kii daa baax rek. barki sëriñ Touba làmb ja du song non du ma si <laughs> barki Serigne Touba. kii yore loxoom entraîné. boo ko nga ne du song. du song du ñëw te mu ne dinaa ko fa fekk daan te jël bu rëy laa koy daan te du mat deux minutes ma daan barki Serigne Touba dama ko waat ay caaxaan. yaa seede deux minutes du ko mat ma daan ko jël bu rëy. gis ñaari mbër yi loolu lañ wax. nee buñ jàppantee ñoom ñaar du mat ay minutes mais ñu ñu bàyyi ñaari mbëri rek ñu woote. ñu bàyyi ñu bàyyi nga woot ñi lay jàppale rek ak looy wax ci sponsor bi intercontinental de négoce. waaw intercontinental de négoce ñoom dañuy jàppale yaay élèves bu baax a baax ndax boo ñëwee ñu jaay la bu yomb nga jox say doom ñu dem jàngi ñoo tax gars yi sonatuñ ci fermeture yi maa ngi woo nag sama gars yi waa Guissombel yëpp di woo Lamine Ndaw mu ñëw jàpp si daan na si jàpp bu baax kenn Alassane Sall ñu ngi koy woo moom da jàpp bu baax doo Moussa Moussa Diagne mu ñëw jàpp si bu baax kii nag amul lu ma koy wax yéen waa Gousso Mbène laa wax leen billet yëpp ñu dem barki alxuraan karim ba bëriloo ko ba mu daw daan ko jël bu rëy loolu dong la am si lu ma koy wax looy wax sa sponsor intercontinental bi moom ku ko xamul daanaka dégg nga ko bagage yomb yëpp daanaka fii la waaw yàlla na jëm ca kanam daal waaw le vingt na gaa yëpp jàpp si la vingt huit ma daan yaakaar guy sombel jël bu rëy di woo sama mafia bi fan si kële foog a bari bi ñoom ñëpp waaw nañ ñëw jàpp si bés bi waa Mbour tamit maa ngi leen di woo waa Gandiol nañ ñëw tamit jàpp si bés bi sama waa gaale bàyyuma kenn waa koñ ba nañ ñëw jàpp si bés bi ma daan ko jël bu rëy laa ma moom leen leer na ma ah ku teelu te ñëw doo am place barki Serigne Touba déggoo de dara yow laa ko. ñëwal nii ñëw leen nii. Eh. yow mi laa boo teel te ñëw doo am yow sama koñ nga ne dama lay dalal dangay def ndànk ma daan la ndànk. sama koñ la nekk. déggoo de wuy ma déggoo de déggoo de da ngay def ndànk ma daan la ndànk munoo ko ah waaw lu lay. fan si club bi man maa koy joxante leen loxo. mbir mu ndaw mi am fan njëkk am kon nga dal jël sa temps. waaw dara. waaw jërëjëf yow sa laabu ñëw naa indiwoo mbooloo indiwuma mbooloo. indiwoo waaw iñaan moo tax ngay wax loolu. ñu daan la jël nañ ko. mais yow léegi nañ ko. boobu joxante leen loxo. boole am jox la loxo taxul tamit ma daan la daan pour leer laa loo. joxante